aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokk yi seetaan Touba Info ñoo ngi leen nuyu bu baax di leen ziar di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mountakha sunu borom may ko fan bu gudd lool te ànd ak wér euh, mbokk yi tey jii euh, mën nañ ne yoonu murid gépp ñoo am tiis ndax tey banqaas bu mag da cee fàqoo muy Serigne Atou jaañ isbu tarxiya tey mu mel ni bi ñëpp yeewoo xibaar boobu ñëpp ñoo ko jotandoo ñu koy ñaanal Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom la doon liggéeyal yàlla na ko teeru ca janatul firdaws euh, ñu fas yéene sëq nag ak Sëriñ Fallou Gala Sylla euh, ci ay témoignages ci Sëriñ Atou Diagne euh, sëñ Fallou Gala Sylla nekkoon koo xam ne ñoom ñaar jaxasoo woon nañ lool waaye it nekkoon koo xam ne ci pionnier Hizbut Tarqiyyah la ndax bokk na ci ñi nga xam ne fanweer yi njëkk taxawal Hizbut Tarqiyyah moom bokkoon na ca kon moom mën nañoo indil ay kàddu seede ci sëriñ Atou Diagne sëñ Fallou Galass la bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim eh, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun eh, sëñ Fallou maa ngi lay nuyu di nuyu mbooleem Eh, koo xam ne yaa ngi seetaan sit bii di Touba Info di jaarale ci moom ab nuyoo mu jàll ci mbooleem ñi nga xam ne ñoo di njabootu lislaam eh, di wax rek ne ni nga wax dëgg la ñoo ngi yëkkati kàddu yoo xam ne kàddu yu njaal la di ko jaarale ci bépp membre bu nekk ci bu Tarqiyyah mu jaare ci loxoy Serigne Youssou Diop mi nga xam ne mën nañoo jàpp ne mooy. rakka rakk walla xarit wala doomi ndey ci sëriñ Atou Diagne fu lañ mas a gis-gis leen ñoom ñaar mu jàll ci bépp membre boo xam ne mas naa jaar ci Hizbut Tarqiyyah moo xam muy membre fondateur wala membre boo xam ne sax bokkatu ci Hizbut Tarqiyyah wa ilaa beru na di liggéey Hizbut Tarqiyyah nag bu ma ko waxee mooy Hizbut Tarqiyyah bu mag bi ak bu Daaru Xudoos sax yeneen yëpp rek ndax ñoom ñëpp ñu ngi cosaanoo ci benn kuréel bu tuddoon daayira des étudiants murit soso woon ci jamono Cheikh Abdoul Ahad ci eh, jamono ju doy waar ndax Cheikh Abdoul Ahad jamono ji muy ñëw mu ne grève bi nga xam ne moo gë njëkk génn ci université te grève bu mag dafa dajeek atum Sëñ Abdoul Ahad muy 1968 kan naa ko xam taarixu eh, eh, université da nga xam taarix boobu jamono jooju la Cheikh Abdoul Ahad su ko doon xalifa sëñ Tuubaa njëkkante ak saytaane ci biir xol yi étudiants yi nekkoon foofu daan jàng ndax ay élèves yi Karl Marx ñoo fa daan génn ak ay élèves yi Lénine ak ay élèves yi Karl Marx ay Mao Zedong ak yu demee noonu seen xol yi nag sëñ Tuubaa njëkk ca di fa génne ay murit saadix loolu mënees naa tudd na daanaka boo doon xool réew mi personnalités yi ci gën a mag te doon ay murit fi mu toll te moo xam ñu doon ay ministre wala ñu doon ay député wala ñu doon ay directeur de société ñu ci mën a doon dañ naan jaaroon naa ci daayira des étudiants mourides euh, loolu la nag ca fondation ba ba bisub tey jii moom sëñ aatu goppam bi mos a teggi ko tey jii rek la mas a teg teg goppam bi la goppam bi mas a laal suuf mu nekk jàmbaar joo xam ne euh, bokk na ci ay seere yi gën a yu ma gën a bàyyi xel mooy ñaari baat benn bi njëkk bi mooy bi ab am njàngam jeexee solde boobu mu njëkk a fay da koo jox Cheikh Abdoul Ahad yemu ca mu fab ay diplôme am def ko ci enveloppe jaayante ko sëñ Abdoul teg ko ci loxoom na ko damaa fas yéene liggéeyal Serigne Touba ci daayira di si Tiñaa Murit loolu njëkk na ko def beneen bopp ñaareel bi jaxasoom ak sëñ Abdoul Ahad sëñ Abdoul boole ko ak mag ñu bari ci yoon wi nga xam ne mën naa ne mag ñi toppoon sëñ ci jamono yi sëñ Abdoul Ahad mag moo ci gis rek seq naa ko ab jataay sëñ aatu jataay yu yaatoo yaatu nga xam ne wàll nañ ko lu bari ci sëñ Touba sëñ Abdoul Ahad ko ba àgg ci soxna si mu njëkk a takk ci àdduna sëñ Abdoulaye daf ko waxoon ne ñeenti jabar yi nga war am ci ci lislaam man mi la ko yàlla sëñ Tuubaa sase e, mu doon ko dëgër nekk archive nag ci yoonu murit bari na lu tey damay yox ne kaggug yoonu murit la ñuy suul kaggug yoonu murit la ñuy suul lu bari ci xam-xam yoon wi ak ay archive daje na ci bopp sëñ aatu boobu mu nekkoon jàngalekat it nag maanaam kàddu gu masa daanu ci aatu rek dana la jàngal aw doxin ci yoonu murit ba tamit da ko daan teg tàggat ci lu bari ci is itijaay yi seen bët daf leen koy tegloo ca sahaaba ya sa ba sëñ Abdoulaye waxee ne sahabatu rasul yi mooy seen bàyyi ci diine bañ ko déggee ba fi mu ne itijan buy dox wala membre is bu tarxee buy dox boo ko waxee mu ne la sëñ Abdoulaye noonu na woon mm, sahaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine kon luñ daj ci diine rek war nañ ko supporter eh, boobaak léegi at musta tekki ak laxasaayam jamono ji is bu tarxiya maa ngi fàttaliku ziar bu mag boo xam ne defoon nañ ko Touba Belel nga xam ne booba garabi Belel yi foo xool weer blanc la sëñ Abdou Lahad dalawoo leen xolam sedd ci ñoom ñuy jàng xasida di ku mel ne sëñ Modou Guèye ku mel ne Ousmane Diagne Lam Yaati ku mel ne eh, Fadel Diop ku mel ne sëñ Malick Aïssa ku mel ne sëñ Saliou Ndoy eh, ku mel ne Saliou Mbuub ba ni sëñ Abdou Lahad demee àjjana ñu ànd ak Cheikh Saliou Mbacké di ci liggéey kër bi leen sëñ Abdou Lahad di jox seen kër yi nga xam ne booba ci lañ tàmbalee toxu si nga xam ne joxoon na lañ fi lu junniy parcelle sori woon na lool boobu ci asalem ñu nekk xaritu soxna may muna moom sëñ tubaa nga xam ne lépp lu soxna may de mas di liggéeylu daayira Hizbut Tarqiyyah ña nga woon ci biir eh, ca bu ko tuddee rek da nga seen ca kanam aatu muy généralu armée bi ñemeloo woon xale yi bëggloo leen sëñ tubaa tàggat leen ci liggéey yar leen ci maandu yar leen ci maandu yar leen ci jàpp seenu jàmbur ci lépp lu mu war a doon doo dégg kàddu benn Hizbut defoon ay muuma lañ da leen tàggal leen wax lu amul njëriñ yàq la seen bët yëpp ñu ngi ko teg ci vice rek nu ñuy def ba mën a liggéeyal sañ tubaa teel a ñeme jaayante inna allaha astara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna jaayante membre euh, isbu tarxee bu ne xam ne jaayante la ngay jaayante di jox sañ Tuubaa di jaayante di joxe ci màggalu tubaa di jaayante di joxe ci gàmm di jaayante di joxe ci ziyaare yi di jaayante jaayante yoo xamante ne bii yëpp da nga daan gis ne lii sëñ aatu moo leen daan wommat li gën a dal xel nag gën a rafet njort mooy mujj giñ mujj ci xilaaf ak sëñ Muntaxaa ndax ku ne xam ne sëñ Muntaxa moom daara ji naka mu jóg mu ne muy membre ci biir daara ji membre fondateur la bokk ci daara Hizbut Tarqiyyah da ngay da ngay yàlla mënoon naa dogal Atou Diagne wàcce ab liggéey ci xilaafa ak ku mën a doon ci sëti sëñ Tuubaa yi ak ku mën a doon ci doomi sëñ Tuubaa yi dana am seere su rafet dana amit way waaye wàcc gi mu wàcc ci loxo sëñ Muntaxa wane na ne kon ànd booba dëgg la woon wàcc mu wàññi ci loxo sëñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Muntaxa beneen bi ci topp mooy wàcc gi mu wàcc fajarug ajjuma nga xam ne alxames ci guddi la ba fajarug ajjuma mu wàcc ci nga xam ne ci ngoonu ajjuma takkusaani ajjuma ak la ko xam la na ci biir ci lañ ko war a denc ci Touba loolu it beneen mandarga bu baax la mandarga bu mujj mooy liggéey bi ñu mujjee liggéeyal sëñ Touba ci xasida yi lañ koy liggéey këru xasida la doon liggéeyal sëñ Touba kon ca sëñ Tuubaa ku ne xam ne dégg na ci xaside eh, yusilu xatti man ahabba lil ilaa bi xayri xalwatin wa yakfi kulla la kon yaakaar naa ne mandarga yi ñu war a mën a joxe ci sëñ aatu ci ay référence bari na lool waaye daal dañoo wax ne généralu armée bi daal moo tëdd wala jàmbaar ju doon liggéeyal sëñ Tuubaa moo liggéey ba wàcc aatu dafa wàcc ñoo ngi ñaan sun borom yal na ko yàlla tàbbal jannatul firdawsi yal na ko ñi mu doon liggéeyal ak sëñ Tuubaa mi mu doon liggéeyal ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yal na ko teeru waaye yaakaar naa ne eh, aatu nekk na banqaas bu mag boo xam ne adduna bépp danañ ko jàll si ndax li ëpp ci ay président lu ëpp ci ay ambassadeur lu ëpp ci ay respon ay responsable yu nekk bitim réew kenn ku ci nekk ñëw nga fii sëñ aatu dalal la wan la ci sëñ tubaa loo xam ne ba nga delluwaatee def nga sëñ tubaa ne ko amul morom kon yal nañ yàlla fayal Atou Diagne yal na yàlla taxawu nag liggéey bi mu doon liggéey te moo di daayira Hizbut Tarqiyyah yal na ko yàlla téyal boppam euh, boolewaat leen ñoom ñëpp ñu nekkaat rassemblement ñëpp dajawaat Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos Hizbut Tarqiyyah Asalem membre ya bàyyi woon ñëpp nekk retrouvaille demuk aatu gi yàlla nekk retrouvaille ci ñoom ñu dajawaat mën a ànd liggéeyal sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, jërëjëf sëñ Fallou Galass Syll euh, ci seede yu am solo yi nga xam ne. seer nga ko ci jëmm ju tedd jooj di sëriñ atu Diagne mi nga xam ne moo wuy ju tey boroomam euh, ni nga ko waxee sëñ Fallou Gallassi la bànqaas bu mag fàq na ci yoonu murit ñibbi àjjana euh, sëñ atu Diagne tey euh, li mu nekkoon rek mooy dëgg ndax mbokki nañu bàyyi xel ne kenn ku ci nekk li nga yëngu rek bis boo fi jógee rek loolu rek lañ la mën a seereel yëre yi ñuy wooyee baylaat tey ku ko sol ku ne dañ naan isbu tarxiya la xasida yii tey tey fu mu àgg rek isbu tarxiya joué nañ ci rôle bu am solo ndax tey buñ na kuréel rek tey fu mu àgg rek isbu tarxiya ñoo ko fa def kon nag ñu wax nit ñi nañu gën a góorlu ci liggéeyal sëñ Tuubaa jël sunu dund gépp jëbal ko sëñ Tuubaa te xam na euh, bis bii rek moo tax nit ñi xintawoo liggéeyal sëriñ tubaa tey sëñ Aadu Jaañ ja tey képp ku dem fee ñu koy dencee tey wala fa mu dëdd tey mboolem xeetu xasida tey dañu ko ko yëkkatil ndax du koo jëf bu jëfoon leneen nit loolu la ko nit ñi fekkee foofu kon nag nit ñëpp xiirtal seen bopp ci jëf lu baax te xam ne àdduna amul solo jeex na ba noppi di ñaanalaat sëriñ Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal mbooleem ñi nekk Hizbut Tarqiyyah yëpp suñu borom doon leen wér doon leen kàttan ba liggéey bii ñu liggéeyal Serigne Touba yàlla bu mu laal suuf nañ koy taawu ba faw ba fa nga xam ne fale ko suñu aatu yéene woon sax ñu rombale ko foofu faw ko ci barkeb Serigne Touba